Bienvenue sur Salam Vision. observateur xëy tey ñëw ci ndomb ak toogug doyen des juges ndem si yàlla Samba Sall toogoon ca borom bi def li gën ana ko ko fay wuutu observateur ne ña koy yootu bari na yéene kaay bu groupe Futur Média ñëwaat ci li waral mu tax a daw nag ñu bari ca moo ne ñu ne kanu fay wuutu ay yaxam seddagul sax observateur ne naam poste président de la république fort na ne mooy bi njëkk cim réew waaye post doyen des juges d'instruction dafa bokk it ci poste yi nga xamante ni dafa fort cim réew ndax boobee juge am na ñeenti kàttan benn kàttanu woolu nit ki ñaar kàttanu jëlilu nit ki ba ca toppit mooy kàttanu jàllale nit ki ci kaso bi ak it kàttanu jàppalu nit ki ca bu dee ab procureur donte turwa raglu na lool benn ci yooyu kàttan la am maanaam mandat dépôt kàttanu jàllale ci kaso bi kon yéenekaay bi ne nekk juge d'instruction responsabilité bu rëy la nekk doyen it rawatina dossier yi gën a mag ci taabalam lay yi ba ci dossier yi gën a tàng juge Samba Sall ma fa nekkoon de ña ko jot a xam ak ñii di ay nawleem ci métier bi ñoom ñëpp ànd maase ko xereñ gi ak matoon la mu ca doon ñi ko fa war a wuutu nag di magistrat yu mag def lu ëpp ñaar fukk ci ati carrière observateur ne bokk na ca ci mel ni yaa xam lay nekk jamonoy directeur des affaires criminelles Cheikh Bey nekkoon fi ki njëkk a jiite CREI Aziz Seck bokk ci commission d'instruction bu yi di ancien président UMS li waral nag seeni tur feeñ ci suuf noone mooy ñoom it ay juge yu xereñ lañu conseil supérieur magistrature nag moo yor coggalu guy gi ci tànn gi ngir ëllëg dañuy des ak wàllu yoon ak mbiri juge Mamadou Seck njëkkoon a yore dossier Ousmane Sonko Adji Sarr laata mu koy delloo ñi ko doon yónnee ci téléphone ay bataaxali arto boom bakkanam ak yu njabootam libération ne yoon téye na ca ñaar di Anta Diagne ak Yaya Siré Sissoko ba defeere leen dossier ba teeri ci tribunal flagrant délit seeni avocat défense di sàkku ñoom te waaye juge bi ci boppam juge du Seck les échos wax ci section de recherche bu Colobane ak jugee gu fa naa lieutenant ab Abdou Mbengue jugee doon léegi ni nu ko waxee lieutenant colonel di patron gendarmerie diwaanab Ndakaaru yàgga leerali dossier ba yi ci gën a tàng ay maasam yépp ànd nag nangul ko ak xereñam capitaine Alioune Ndiaye nekkoon ba fii conk mooy ki koy wuutu foofu ci section recherche moom capitaine Alioune Ndiaye enquête yéenekaay ne général Jean Baptiste moom la tànn ci biir googu ministre des forces armées capitaine Ndiaye di ko xereñ xamee lool ak section recherche ñu ne ndax nekkoon na fa diir bu yàgg adjoint boos yëfa woon muy commandant Cheikh Sarr di commandant Issa Diack laas moom tey fukki fan ak ñeenti yor avril 2021 la mu fàttaliku mooy radiation dàq gëfi woon ñeel ñenn ci alkaati ci Sénégal ci jamonoy président Abdou Diouf fanweeri at ñu bari ci ñoom ak seen i njaboot ci yéenekaay bi Papa Amadou Dieye nekkoon boobu encadreur ci GMI Thiès di wax ne ba yëf yi amee maanaam dàq gi moom daa soppeeku ci saasib agriculteur dem bay Cheikhna Keita président mouvement policier à la traite moom ne yooyu dogal booba jamono du woon lenn lu may bëgg a neex FMI ak Banque mondiale wàllu politique Sud Quotidien xëye watey gox-goxaan yi ak calcul yu dul dàkk yi mu gis ne pouvoir bi waaye bu opposition bi it mooy calcul yi ngiróol yëf yee yi toxal gi ak toxalaat gi nag ñeel yooyu local te mooy xëy def ne bi ak société civile bi dunu ay complice faf bu pouvoir bi wàllu sport arène nationale bi ak yàq yëfa woon jeexal xolub ministre des sports Matar Ba les échos ne ñaari téeméer ak fukk ak ñetti seize lañu fa daldi damm keroog làmb ja ministre Matar Ba ci yéenekaay bi ne su laajee ñu tëj arène bi état bi dina ko def vox populi ne donte fanweer ak ñaari milliards dem ci defar gi état baa ngi artoo tëj boobee arène nationale ministre Matar Ba ci yéenekaay bi ne yenn moom mënee su ko bàyyi mu jàll ca nag caméra surveillance ak pexe bu mu mën a doon faaw ñu fexee ràññee yàqkat yi teg leen daan yi lamb ba tey ministre Makhtar Ba di xamal waa axlu lamb ne su laajee ak tëj boobee arène nationale daañ ko ne ràpp tëj ndax yëf yi moom état bi munta toog rek di xool ca ñaaw na ba fa ñaaw yam jéggi na dayo CNG bi moom toogul di xool ndax yëkkati nay daan teg ca mbër ya dañuy des ak lamb ji ak sunu lamb fësal nataal ak kàddu Jules Balde Jules Balde mooy magi Ama Balde muy def pression ñu ne ci Luc Nicolaï promoteur lamb ji war a dox diggam moom Ama Balde ak Modou Lo di ko xamal ni contrat bi dox seen diggante saison bi lay jeex Modou Lo nag Jules Balde nga koy cokkaas ndax nee na ko biir jéen kay rek Modou Anta moom sunu làmb ne Modou Anta li ko seen CNG bi teg népp daan mooy teq ci xaalisam téeméeri junne ak fanweer ak ñaari junni waaye manager am bi di Zal Mbaye dafa gis ne loolee du lu jaadu c'est injuste ca jokkoon na ci ak CNG bi bismillah gi la day ah du yomb de mar di la dana mitti lool parce que nag ay waaw waaw parce xam ne def na ko ci biir réew mi day doy na waar lu ëpp atu yàllaa ni di ay chômeur mbir mi nag yokk na genn xeetu o xam ne kon jéggi na dayoo bëri ci ay sénégalais yoo xam ne day ci la ñu ñàkk seenu liggéey laa la wax allahu akbar la ilaha illallah te bu ñu sukkandikoo ñag ci ANSD ah ah seen rapport bi nga xam ne génnee nañ ko nag ci weeru novembre 2020 lu ci tolloo juróom-ñaari junni ci ay entreprise yoo xam ne dee tëj nañu la ilaha illallah yéri kaa gi ne boo ca toftalee nag njëgu dund gi lée denra yi ah nga xam ne kon maîtriser wuñu ko am na ca ñenn ñoo xam ne kon nañu ko yokk sax di ko gonflé dama ne la weeru kooru ren gii daana remiti laa la wax tribune yéene kaa ne beneen jafe-jafe boo xam ne tam war nañ ko saafara day mooy mbirum ñaxtu laa la wax syndicat yi lée looloy mandargaal ne weeru kooru 2021 bi lée ah xeetu koo xam ne doy koor mois de ramadan de crise yéeni kaay yi dee média gi ne waaye boole ca wàllu wér géeram ak mbirum njàng meeg njàngale mi ñaar ñi nga xam ne kenn mënul dem bàyyi leen ginnaaw laa la wax ñoom it feebar nañu tribune yéene ne xam nga man lan laay laajte am réew moo xam ne nee nga yoo oh, da ngaa sa bopp waaw ragal nga tamit ku lay cam bëggoo sa der yàqu sa dellu ginnaaw mais yow nan ngay mën a signé loo xam ne doo ko appliqué wala boog nga cay def ay wax waxet looloo ma jaaxal critique la ko jaaxal waaw mooy xeex wàllu sa jégbal sax ji la ay milliards yi milliards tàbbal ca biir géej ga noonee rek mar d'Italie waaw waaw looloo tax ba waa ñoo lànk day ci 24 heures ci xaalis bi nga xam ne nag union européenne daal dina koy dugal ngir dakkal nag wàllu màngaan joojee Barça jeeg Balzac ji xale yi nga xam ne kon ñi ngi jël géej gi waaw waa ñoo lànk nee nañu nguur gi buñ bëggee taxaw ne xaalis boobee amul jàpp leen ne kon xaalis ba sàcc nañu détourné nañu ko laa la wax dama la union européenne gi la mu dugal ci ay ana financement yi Mamadou Lamine Diallo day ci 24 heures waaw nee gis nga deer bi deer ce machin politique nga xam ne fay-fay yeeg sàll-sàll yi daal ñooy borom waaw deer bi ci boppam kon moo ñu war a wax moom ca boppam ñaata lay dunde deer bi ci boppam la ñu a taxawal benn commission d'enquête indépendante laa la wax ngir daal di koy auditer ay financement yoo xam ne ña nekk ca biir nguur ga ak seen bennoo bokk yaakaar boobee dong ay politiciens indépendante den nga tëral yéene kaay de xam nga Macky Sall ak nguuram ji la wala africain yi waaw fan la leen askan wi di xaar rawatina jeunes yi la mooy alalu réew mi nga xam ni kon nañu koo jël rek jox ko tubaab yi te manifestation yi de mais dañu ko wane wane nañu ko ay Auchan ay Total jël suñuy société kon jox ko tubaab yi la privatisation waaw ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ca diwaanu Ziguinchor gale ak Dakar u Ndiaye jël Diop Sédhiou Kolda la ñuy xaar daal mooy taxawaayu bees lii la la mort yu ñuy laam-laamee ci kaw attakat bi lé di juge Mamadou Seck maar di dafa am benn message boo xam ne kon yónnee nañ ko ko ñaari yoon moom magistrat bi la wax le 28 bi ñu génn la ne nag ñu lay xaar ci dossier Ousmane Sonko bi lé te tam ñu lay bàyyi xel di bàyyi xel sa njaboot ga nekk ca duwaanu ci waawoon gala dre leen ci kanamu procureur kenn ca ñoom am na liberté provisoire dossier ba kay dañ ko yóbbu nag ca flagrant délit gala waaye seeni avocat yéene kaay ne kuréel gi njaboote waa Fuuta tampi day Fuuta fatigué sonn nañu waaw ñi ngi ci buntu Ndakaaru Njaay jël jóob laa la wax bu ñu sukkandikoo nag ci Siré Sango moo nekkoon coordonnateur mouvement élèves et étudiants républicain bu kaneel waaw nee na wàllu màngaat googee jóge ca kaw nga ñëw ci Ndakaaru Njaay jël jóob léegi kay ay morsoy xonq laa lay wax nii lañ koy booleel exode rural bi xonq to source ané cinquante millions yi nga xam ne nag moom la xalif bi joxe xalifa murit yi waaw ci ñu am kon ay gaañu gaañoo ñi dee ci problème Ousmane nga xam ni kon ay gaañu gaañu mité mité la ñoom am nañu un million direct news day ñëw ak ñin nag ci vingtième forum international économique sur l'Afrique waaw président Macky day wàllum koom gi lay il faut ñu gën a mën suñ bopp nag sur quotidien ne diggante nguur gi opposition bi day gis nga calcul yi calcul politique yi waaw ñoo tax ba élection locale yi mënagul am de moo koy kaleel kak laas élection locale yi lée weeru janvier 2022 waaw élection député tamit ñu amal ko ci 2022 boobee waaye noonu na li ñëw opposition ak société civile waaw ñoo tegal nguur gi ay conditions le témoin yéene kaa gis nga élection locale yi nga xam ne kon nañu koy ajaka ajaar rek waaw dem nag ba tax ba éli locaux yii ñu leen di yokkal ci lu jaarul yoon ñaari atu yàlla la amatu benn légitimité waa kat moo waral nag ñuy ak yi dëgg opposition bi ak société civile ci bopp est-ce que nekkuñ ne sax ñoom ñooy complice nguur gi laa la wax tribune yéene kaay ne mouvement yi di Kolda de bu day ak li nga no Kolda waaw bu Abdourahmane Baldé ak Yaya Baldé alias Zës boole nañ seen doole de exclusive yéene kaay ne taal courant bi nag ci biir réew mi yëpp ngir ñëpp waaw directeuru Sénélec day Demba Bitèye daal dina cay lugal loxoom de box boobu li ne ni ñu caxa-caxatee nag arène nationale ba lay amateur yi ñoo waa nguur xam ne fanweeri milliards ñaar Mataar lañ ca def danañu ko tëj Mataar ba dafa mera mera mera ba fut laa la wax Mataar ba nee mbir mi du yombee noonu de déedéet te duñ bàyyi nag mbir mi jàllee noonu arène bi moom bu ko laajee sax danañu ko tëj laa la wax laay mbaw ci tribune yéene kaay waaw nee na président Macky Sall day daa demoon marché waaw takk masque sol ay verre wàccee mbaxanaam ba ñu baree bari xàmmee wuñ ko commencé jënd nag njënd lu ànd ak sax waaye daa jékki rek nit terrain baa ngi ni lu yàlla xam doy na njëg yi lépp a président ne ko pourtant day ndugumi woomee eh. njëg yi maa ngi cay góorgóorlu de ndaw si ne ko mais monsieur le président yàggul dara locataire nga woon monsieur le président yàggul dara nga nekk ministre yàggul dara nga nekk premier ministre nekk président assemblée nationale monsieur le président ndaw yaa ngi ni lé monsieur président rayal sa ci njaboot yi la ngir seen dund gën neex monsieur le président rayal sa ci démocratie gestion guerre monsieur le sa bopp ci sàmm geeg mbéy lépp ca marché ba de laay mbaw ne waaw ndaw si ne ko monsieur le par parloo gi ci wàllum politique bi rey ci sa bopp monsieur le président justice bi taxaw ca mu àndoo loole monsieur le président wàllum élection yi fichier électoral taxaw ca ay monsieur le président suñu alal ji le góorgóorlul sénégalais gis ci seen bopp ñetti atala fi des Macky Sall taxaw di xool ndaw si rek waaye moom président ba mu delluwaatee danaa leen koy yeggalil <laughs> question yi bari na li ma jaaxal nag dama cee déggul pétrole dama cee déggul gaz ak troisième mandat alaaji boo paree ma ne la tëjal Bienvenue sur Salam Vision.